Touké recommandation yi ñett la maa leen di sant di leen sargal ci seen teewaay donc euh, ren aussi comme nin koy defee ñu waxtaan. Euh, ñëpp ñi seen xel euh, màcc ci santé sécurité wér-gu-yaram ak kaaraange liggéeykat yi ci bërëbu liggéeykaay yi ak ñëpp ñuy liggéey ñëpp ñuy liggéey parce que bu ñuy wax prévention euh, ñiy liggéeykat yi secteur informel ak économie informelle li ñuy tuddee secteur ñoom ñëpp ñoo ko bokk ñu ñëpp ñu daje def plus de fukk activité ak yu teg ci ay journée yu bare waa société civile bi travailleurs yi liggéeykat yi njaatigi yeeg médecin d'entreprise yeeg infirmier du travail ñëpp booloo ku nekk ci sa wàll bi nga féete nga taxaw euh, waxtaan ak say membres yéen ñëpp ngeen indi seen contribution léegi ñu tënk loolu yëpp dajoo ci ñett recommandation donc loolu la ñuy déroulé at bii ba at bii di ñëwaat incha allah donc bu njëkk bi ñu def ko ci niveau instance état yi institutionnel yi ñu laaj leen ci ndax programme national la ñu am léegi Euh, kuréel bi nga xam dañ ko teg ensemble action ñu décliner ay priorité donc loolu lañ bëgg ci at bi ñu nekk ñu dégmal ko ñu ñu taxaw si ba nin ko waxee nin ko programme ñu ñu def ko lépp donc loolu lañ def comme recommandation ci institutionnels yi ci niveau travail employeurs yi ñoom ñu recommandé que ni sécurité santé au travail dañ ko war ci njëlbeen pour dugal ko ci ci ci xam-xam ak euh, euh, dundu nit. mu associé ci culture dañu war dès le bas âge ñu jàngale ko ci école yi ñoom dañu recommander que sécurité santé au travail ñu intégrer que système éducatif bi boole ko ci li ñuy jàngale comme instruction civique leneen mathématique ak leneen ak leneen ñu boole ko ci comme nit ñi xale yi màggeek loolu donc bu nu nekkee ci bërëbu liggéeyukaay yi dinañ am euh, jafe-jafe yi dinañ wàññeeku pour ñuy changé habitude di am at reflex sécurité travailleurs yi tamit euh, wér liggéeykat yi ñoom tamit dajaloo. recommandé daje ci benn recommandation moo di dañu bëgg euh, def campagne national bu installation wu lépp luy bërëb ci liggéeyukaay yi ñi nga xam ñooy saytu di sottante xalaat ci mbiru wér-gu-yaram ak kaaraange liggéeykat muy comité gène muy service médecine travail service social IPM yooyu yëpp ñu def campagne bu mag ñi nga xam ne acteur yëpp a koy bokk nag euh, ñu wër dëkk bi yëpp pour def campagne d'installation wu structure yooyu ci biir entreprise yi loolu mooy ñetti recommandation yi ci ci yooyu la ñu daje ñu présenté ko tey et puis déwoon incha allah bu fi euh, ñu dajewaat fi def évaluation bi seet lan lañ ci def ak lu ci def Euh, la ci loolu la ñuy bëgg encourager euh, donc état bi bu du joxee responsabilité wu wér yaram ak kaaraange liggéeykat yi njaatiki bi état bi tamit lemul ay loxoom bu tegee dispositif réglementaire bi yooyu yëpp da la caisse de sécurité sociale daf fi nekk di leen jàppale di leen jàppale di leen xelal ci nun koy defee ci jàppale boobu nag ci lan taxaw def concours bi daan ñi gën a xarañ ñi gën a góorlu ci comité d'hygiène yi nan ñëw fii ñu sargal leen donc ñu ñu ñu entreprise yu bare indi seeni dossier donc ñu war ci primaire ñeent mais ñeneen ñi ñëpp tamit ay góor góor góor la ñu ngi leen di féliciter euh, di leen encourager ci ñu persévérer ci wér gu yaram ak yi donc SAR ren moo jël raw gàdd moo njëkk ci am ci ak yeneen ñeent entreprise Bolloré ngi ci CFAO Motors ak entreprise yu ak euh, GCO donc entreprise boo leen gisee secteur d'activité bokkuñu ko bokkuñu waaye ku ci nekk ci sa secteur wane nga ak sa dossier ak jury bi euh, convaincre nga leen que ni yaa ngi góorgóorlu loo mën ci ci fànn yooyu ñu wane ni nag euh, c'est possible mën na nekk ndax ay entreprise a ngi nii ñi nga xam ni jël nañ prix yi te di encourager di woowaat ñeneen donc ñi ngi con ñi ngi continuer ci concours bi donc que ñëpp nanu ñëw ñu sottante xalaat pour wér gi yaram ak kaaraangeyu liggéeykat yi ndax loolu mooy jëmale réew kanam.